école Barth moom ak waa Paris ñun ñëpp a ngi Paris berse bi lu yomb waaw berse bi moom beneen beneen ampleur bi mu jël sax man comprendre ma ñu koy pare daal robe yi pare na sañ say lépp rafet bu leen wax dara boobu semaine képp ko soxla nga ñëw ci Baye Fall ci kàttanu yàlla dina jàppal kon yow daal ku la woo incha allah dina woo ci kàttanu yàlla dina jàppal incha allah képp ci numéro bi tamit da ngay cinquante et un treize vingt trois soixante ok zéro sept cinquante et un treize vingt trois soixante sama numéro incha allah képp ku soxla fii boo ñëwee ci Baye Fall Café kàddu yàlla di nga ko am. di ñëpp nag ñu koy pare. nga xamante ne nii ñoo nekk ci diaspora bi ñëpp rawatina waa Paris ak waa Allemagne waa Belgique ak waa Luxembourg waa Espagne ñëpp fu ne nit ñi ñu may téléphone di réservé ay billets ci kàttanu yàlla daal ku fi ñëw semaine bii nii. dina jàppale. kon jërëjëf képp ci kàttanu yàlla. Ah oui, Abdiouf, je connais. Ça, t'inquiète même pas. On a déjà les affiches. Abdiouf, c'est nos leaders, c'est nos vieux morons. Ici, voilà la, la tantie. Ici, c'est chez vieux père Pâté, le meilleur restaurant de Paris. Mais danse en Mbala Hein Danse Mbala Eh, Mbala Non, bien, hein Moi, je suis ivoirien. Voilà. kii sama bersi xarit bi moom kay ñu koy préparé ah sénégalais yi ñëw fii yëpp ñu ngi def pub bi baax a baax a baax a baax. affaire bi daal mi ngi yëm. événement la lii moom événement ah. si événement. seen seen rob yi pare na. yëpp rob yi sanse yi. Ah ah. kon du yomb.